dugg ci li nga xamante ne ni actualité la Sénégal jamono yu ñu toll nii muy mbirum ki nga xamante ne ni moo di suñu papa Oustaz Iran Ndao nga xam ne réew mi yëpp mu nekk ni moom la ñuy waxtaanee moom mi nga xamante ne ni dañ ko taal caméra site internet yi daal di koy seeti muy wax ci biir biiri waxam ba ne moom dugg na néegu góor ñaari yoon naka nga gisee loolu ci kilifa bu toll ni Oustaz waaw <clears throat> papa Iran Ndao moom euh, xëy na li mu wax nag euh, jaar-jaar la nag ku am nga jaar-jaar comme la ba mu ne moom dugg na néegu góor ñaari yoon ah man ci sama gis-gis gu gàtt nañ ko ko nangul rek parce que ku dem mag bu doy nu moom muskallaf bu doy nu moom imaam ustaas bu doy nu moom su demee ba di kàddu wax ko c'est parce que am na fu mu ko teg. Euh, waaw xam nga àddina nag. dafa am loo xamante ni moom euh, bu ko nit di wax rek responsable responsabilité boppam la bu dee moom xoolul ni caméra moo ko tiim day wax ci digganteem ak boroomam seetul ni lii luy tas la walla seetul ni lii ëllëg dina àgg foo xamante ni nit ñi dinañ ci wax yu doy waar waaye comme moom nag jàpp na ni li muy wax seetu ci caméra seetu ci portable seetu ci dara donc loolu mu xam nga kenn mënu ci dara moom li mu jàpp mooy li mu li mu dund di ko partager ak sénégalais comme nag moom bu toogee toog ci télé bi ah man de bu doon man moom wax dëgg yàlla du ko def moom mais comme moom mi ko def nag li tax lim ci jublu kenn xamu ko waaye xam naa ni bu doon keneen ak keneen nit moom doo leen tàllal micro ñuy wax loolu donc nag euh, je vois que ni euh, man dama koy déglu Iran même bu ma rëccee man ci télé bi damay dugg YouTube kar émission am parce que ay waxtaanam lu may lu may bàyyi xel la ay waxtaanam yu may bàyyi xel la donk euh, loolu moo waral sax ma yëg lii mais bu ko defee bi ma ko dégloo dama jàpp ni Iran moom toujours euh, sañ-sañ bi ak dëggu bi moo ko yóbbee lii muy wax moo tax mu wax lii mu wax te seetu ci dara xoolu ni tamit tele la dafa jàpp ni lu mu war a génne la rek génne ko. waaw moom laa lay wax ni xam nga nee naa la ci sànq ci biir wax ne la lim ci jublu moom dong moo ko xam. li tax mu am sañ-sañ bi def ko ku ne xam ne ni Iran kilifa la njaboot na am na ñu ko yaakaar ci moom am ñu koy déglu mais tamit euh, doonu loo xamante ni it lislaam daf ko aayal pour tamit nit ñi bàyyi loolu xel mu toog ne xaraf naa ñaari yoon du bind binduñu ko fenn ci l'islam ne lislaam day interdit ku ko wax yaa ngi dégg xëy na rafetul ci kilifa ñu koy dégg mu koy génnee ci làmmiñam nit ñi rafetul ci xelu nit ñi mais doonu loo xamante ne bu ëllëgee yàlla duma la ci ci lislaam ne la lii dañ ko bindoon bërëb sàngam ci lislaam ne bu ko kenn wax yow nga wax ko ndax boo xoolee léegi euh, pourtant Iran li mu wax nit ñaa ngi wax lu gën a garaaw loolu nit ñaa ngi def lu gën a garaaw loolu nit ñaa ngi génnee lu gën a garaaw loolu xëy na moom dafa wax rek ak turam ndax bu ko keneen waxoon amaana mën na bañ a siwee nii xëy na moom turam moo tax mu siwee nii mais Sénégal euh, lu gën a yéeme loolu mu fi fii am lu ko gën a yéeme donc nag am na loo xamante ne moom man je vois que ni nañuy nañuy bu ab benn wax amee nañ ko tëb rek ñu bàyyi noonu mu jàll ndax euh, te xam ni bu dul dara yàgg nañoo yee ci diine nit yàgg naa jëriñoo xam-xamam. nit yàgg naa jëriñoo xam nit yàgg naa jëriñoo ñaqam ma ngay dimbali waatee ko kon nag pour man daal loolu daal waaw.